MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. moo tax Maodo ci malade demande xool dal di wax ñenn ñi ne leen bëgg naa nangul ñëpp waaye am na ñu ñëwul te ñi wax ni ñëwuñu wasifa pourtant ñooñu ñu ngi ci malaan bi toog yore seen kurus jàppee ni seen présence physique lay wax rek daal di jub présence spirituelle bi moo ko gën a ñor te mooy liy dellu tey ci teewlu bi liy dellu ci méditation bi waaye liy dellu ci bàyyi xel ci li ngay def loolu yëpp ci la bokk waaye benn bu ca nekk la ko ëpp solo nag mooy la nga jàng ba noppi. nga jàng kaak xol la chaîne qui enseigne la chaîne qui éclaire pour vous servir veillons que chaque information soit pure la chaîne qui éclaire.